revendication auto-école dafa bari trop même budul euh, aspect Covid vous n'êtes pas sans savoir que ni arrêté une activité pendant trois mois Nous avons arrêté activité yi nous euh, fonds alloué école la force Covid 19 fonds yoyu biñ ko école la tutelle ils ont vu que nous dispatchons au niveau des gouvernances parce qu'il y a des autres écoles sur le territoire national mais on s'est rendu compte que depuis que nous déposons au niveau des gouvernances je prends particulièrement l'exemple de Dakar le gouverneur de Dakar a reçu les fonds pour les autres écoles ça fait plus de 15 jours ba léegi écoles contacté wu information alors nous on est une profession qui est pourquoi dañu parce que nous sommes des éducateurs mais nous sommes une force qui xam aussi suñuy intérêt Si on ko naree salfaañe on peut se mën nañ ko defee nuñ mais pour l'instant on lance un appel au gouverneur xaalisu auto-école écoles, à la gouvernance na woo le responsable des hôtels écoles mu jox les fonds qui sont alloués aux hôtels écoles bu jógee ci fonds Covid 19 15 jours c'est trop ci ku yor xaalisu ay doomu aadama ça c'est un cri du cœur quoi bëgguñu ko def ci ay euh, mu ñaaw wala mais on attend toujours donc suñu dougul won ci yenn réseau yi ba xamné ne ba agna gouverneur bi mu ko jotté ba légui woowu ñu sax pour wax ñu ni khalis bi axina. De nous on était assez majeur. nous sommes des chefs d'entreprise Mon nañ mëna jël suñu chèque tas ko ci ñëpp té kenn du wax parce que on a fait un travail très colossal en amont pour recenser les autres écoles xam ku ci nek lan nga wara mëna am kon muñ ko joxone sax ñun dinañ ko régler en moins de 15 minutes mais nak ki lay dimbali ne fi la koy jaarale tu es obligé de suivre mais nak kañu jox suñu xaalis aussi nañu wo jox ñu suñu xaalis